waa commission Dakar bi sax yabal yable nañ fi te ña nekkal ña leen te nekkal foofu yi téléphoné nañ leen wax nañ ni ñu ko gisee fii noonu lañ ko gisee foofu kon ñu xam ne kon ci ndigalal sëñ Muntaxa ci la ñuy waxe ndax buñ ko gisee ak lu mu leer leer ci noonu faaw danañ dañuy dañuy dañuy jokkoo moom ba ba ba mu joxe ndigal ci ne na am joxe ndigal gi nag jubluwu jubluwu ci loo xam ne day saytu ne rek dañ man maa maa yor ndigalul weere wala yooyu waaye ci ci li ñuy séentu ak nan koy waxee ak xibaar yeen koy jox ca loolay sukkandiku ba joxe ndigal ci waaye kilifa kenn du ko jiitu moom rek moo moo moo sañ a wax moo sañ a wax ne weeru feeñ na nu door cee topp kon ñu xam ne loolu am na kon maa ñaan yàlla ci sëriñ jërëjëf sëriñ Touba weer wi woyof lool ci nun da ànd ak xéewal ak jàmm ak sutura ak teraanga ci dara ji sëriñ Touba te sëriñ Muntaxa yàgg fi lool te wér ta ba li mu yéene ci yoon ñu ma ko ba ba sosaat leen daan ànd ko moom ci dara ji sëriñ Touba wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ala dul xadim jëm imam waaleykum